lan la. Sadio dafa newoon jugu fa. waaw sama ñeenti wa waaw ma teg ko ci kaw bopp la. waaw ñu ne ko coppet jël. du yoon xam nga ku ko jël. du yoon waaye dina génn yow moom amoo wax. ndax yow yoroo dara waaye dafa ndànk rek. maa dem eh. sama benn càmmiñ may ma ko pour ñu ndogoo ko. xaalis bi day génn ci nii. ñeenti téeméer maamu génn ci naa. ñeenti téeméer tegul. ñaar soo ko yoroon ma ko. waaw dafa ko di. waaw dafa ndànk eh. yow ñànku ñànku da ngaa duggoon sa néegu yu baax. ah waaw léegi ah, gisoo fa deux mille la waaye deux mille deux mille deux mille ñànku këyit kii waaw. kon du maa ngi léegi. waaw ñaari yoon. waaw beneen naan beneen sama égaar laa doon seet gisuma ko sax ma génnaat. sa égaar nga doon seet. waaw gisoo deux mille gisuma ko sax. lan nga am sama néeg ba fay eh, eh, dugg. Eh, waay may ma égaar dama ne la sama xaalis day génn ci ni ma am génn ci naa. waay waay waay tey ma ci dara. ah sa néeg umpaañ da nga faa duggoon. waaw. waaw waaw. dugg naa fa sànq 2000 fan lañ ko tegoon ban côté. fan ko ban côté. ci kaw bopp lal bi laa ko tegoon. ah demoon agum si bopp lal bi. Eh, sa bëri nekk ci dugg nga ci nekk bi dugg nga fa. 2000 <laughs> ci bopp lal bi laa ko teg. kenn laalu ko ñun ñett dong ñun ñeent kese nekk ci biir kër gi. waaw kenn juróomee la ñu. waaw sama 2000 day génn ci nii mbaa ci naa. waaye defal nànk la nag lu ci waay bañu bañu ma ko ci. waaw déedéet yow ci bopp lal bi. ci bopp lal bi. waaw la nga ko tegoon. waaw looloo. waaw looloo. moom moom waaw. dafa bula. waaw mu ngoog. ah ma ngoog waaw gis nga ko de. noo xamee ne dafa bula. Eh, gis ñu gis ñu 2000 de. ko léegi loo def ba xam ne 2000 bu bula la. kii ma ko suuf rondal gisee nga mel ku koy seet ñu seetandoo ko nga gis ku dénk. génn génn génn génn. ah génn génn génn génn mu jàpp génn génn mu jàpp génn. génn génn génn génn génn. ah génn génn génn génn mu jàpp génn génn mu jàpp génn génn génnoo gi lay. dugal si force. dugal si force dugal. delloo. booy teg booy teg dil dama kaa war a wax man amoo problème yooyu lu may teel wax ne yow ñaa nga man may sàcc ma xam ne yow sàcc nga ma jàppale la. sàcc ma ko damaa amul dépense bu ma joxe tey ma jël ko noonu rek après bëgg doon joxal ko. sàcc nga ay mënoo bu doo sàcc sàcc waxal waa sàcc nga waxal waa waaye saa yi waxal waa. tëjal sa gémmiñ moo expliqué la. Eh, eh, amul loo wax yow si boo booy sàcc man jàpp la amul loo wax. te jël ma dama lay expliqué. léegi libéré ma. lan laa lay libéré. dama saa faral. cent franc. waaw dama saa war a wax kii léegi rek. yomb ma lu ma lu kaay. daa ma wooyee jox ma cent ba léegi am naa xaalis. waaw da ngaa rek ñëwal ni. man Ndoumbe man Ndoumbe man Ndoumbe rek da ngaa teew rek. waaw. lii daal tànk rek nag yow tamit accident daf maa dal dama ko doon jël pour joxe dépense pour wane ne tey maa joxe dépense bi rek léegi sa sa sa umpaañ kii daal dama. jékki-jékki jëluñu yow. waaw ba. parce que ñaa ngi ko gis dama ko yónni mu ne ma moom bu ma ko joxul cent franc dina ma boole. yow nga jël deux cent jox suñu sang ñaa ngi ko cent léegi li ci des nga jël ko yow. waaw dama koy jël rek. Hmm. dama a joxe wala ma jox seen umpaañ mille franc. yaa garaaw de. ah ma nii ko. tàmbali ko am na ku fi jël deux mille Mbaye. Mbaye. Mbaye Thiam. Ah, waaw waaw jàmm na Faye. lan la Mbaye Thiam. lépp leel na. naka yaa temps yëpp ay yu ñu doon wax fii mbulokton yi doon leel gars yi di ko jël ñu naan ñi ko koy ji ñànk yaa ngi fekk ñu ñànk ko. est-ce xam nañ sàcc sa xaalis lépp leen ma gis naa ko sama bët bii. ñànk magub jëmm laa du ma woo bu ngoon jox xale ndaw di ma ñëw di ma këll këllee kan moo jël deux mille yi. Sëñ Ndiaye kañam. juum de. waaye kañam kay tax ma ne hmm? gis nga deux mille. waaye yow leen jóge sans force sax. jox yow. yow yéen ñoo ma numé. ay yow doo ah, bàyyi kii wax seen wax nii. eh eh yow yow yow yow ñoo ma numé léegi sama kanam. lan laa yow li ma numé. yaa ko jox 2000 mu dem. yow da ngaa yow li ma numé. kii dafa gaaw fàtte. kii daa gaaw fàtte. da ngaa yow li ma numé. xam ñaan ko juumoo tamit. Eh, kii kii neen neen neen amul weccet. ah bi neen amul weccet. eh. yow amoo looy def ma teg fii 2000 nga sàcc ko yow magum jëmm ma jël ko xale ne ko yow yaa ko kër gi tey du ngeen fi reer 2000 yi demi poulet laa ko jënd lekk ko man kese kenn du ndogu ci kër gi tey. gi ginaar laa ci jënd. wala ko man kese ci biir kër gi. yow moom ni jaay doo ruus. yow moom doo ruus. waaye ñaa ngi ko jërëjëf. waaw baax la. waaye yow tey doo dugg ci néeg bi. sama duggee dinaa la dóor mbaam a e eh, rey ba nga rey sama ndijaay rey moo fàtte dinaa da sama ci de tey baa leen nag tey tey tey moom di nga ñam ci ndox ndox ndox ma set pétaw waaw mu ngi lay xaar ci bi bi woo nga teg la say say filiweel yu bari nga ni ku kii boo duggee dina la jàpp ñu la ba nga lekk la tey moo nga feefaay sama fu moom tey fu fu nekk sax du yuuxu nag dañuy dañuy délancé dañoo wool oui tey moom duñu àtte moom tey moom duñu àtte kenn xanaa xoolal xoolal seen kàttan. di di ngi yolleeku. ngi yolleeku. da yolleeku. <laughs> sàccee bu. daw daw gars yi boo ñëwaat di nga fi ngay dog see. boo ñaatee pas deux mille pas deux mille. dalus dalus ak pare di sàcc.